Lot Mamadou Mouhamed Ndiaye. Pape lakkale nga. lakkale ci na non danga maa bett. waaw lu la bett lu mën la mais yaa ngi doon xool sa journaux yi. waaw dafa am lu ma doon arrangé nag. gis naa ni nga ko tasaaree de. non dafa xibaar bu ñu ma jox ma doon xool ndax mi ngi ci. ban xibaar lañu Seye wax ne moom ngeen di invité suba. kan ci Jibi Seye. Jibi Seye waaw suba ci fajar moom la ñuy invité. loolu laa doon vérifié ndax journaux yoo ko bind wala. bu artiste artiste prince ah, kii la de du pas prince art mais wax na dëgg nag. ah tu sais la remarque elle est elle est mais mais mais ñoo tam xam nga man dama ne ku la ne merci beaucoup rek xam nga xam nga nit ku nekk nit ku nekk foo bokk yoon la boo fa gisee luy dagg nga wax ko man fii dafa dama fi am wàll bu bare tey man su ma gisee loo xamante ne day gaañ Pape Cheikh may ray Pape Cheikh rek baaxuma naa ko Pape Cheikh kat lii ak lii ak lii moytul alaaji jiital nga li nga wax jeex na mais léegi Pape waaw bàyyi ko moom mu bëmëx wala yaa may bëmëx. c'est bàyyi mu bëmëx la rek. seen wax yooyu moom suñu yoon nekkul. wax dëgg yàlla voilà. <laughs> bale jërë ngeen jëf. non Pape nag maa bett bàyyi di ma bett. Mohamed non non c'est que sama xel mi moo bu ma di bett waaye. Eh, ayca yaa ci des ñu dem. jërë ngeen jëf. ay ca Babacar jox ma Sud Quotidien ñu door rek ak moom mi xëy dikk ñun ci lu aju ci AFP Alliance des forces de progrès Malick Gakou mu fa nekkoon te ñu dàq ko Sud Quotidien xëy ñu xamal ne lu aju ci Malick Gakou gannaaw dàq nañ nañu séntu kon mu am benn riposte loo xamante ne ji ñoo ngi ko cay xaar foofee la ñuy séntu réew mi quotidien moom it loolu la si mu di biir AFP Alliance des forces de progrès réew mi quotidien euh, dellu si wàcc ak lu aju quotidien Babacar ñu xool réew mi quotidien en li mu def ci xëtam mu njëkk mooy El Hadji Malick li daloon Djibo Ka ki nga xamante ji moom moo di Idrissa Seck daal ki di Macky ndax du mooy li ko nar a daal euh, mu di lan euh, jafe-jafe yi nga xam ne dund nañ ko Walf Fadjri moom ji moom moo am ci diggante Macky ak ñi muy àndal mu di alliéem journal bi nañu ñetti parti ngi yoo xamante ji bu mu ci àndal en jafe-jafe lay jur ci sa biir parti bokk na ci LD bokk na ci parti socialiste njiital parti socialiste ci laas yéene mu di euh, Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall maire bu Dakar li xew journal bi nañu jafe-jafe yi nga xam ne am na ci diggante maire bu Dakar ak gouvernement bu Sénégal jëm ci wàllu euh, emprunt bi yéene kaay bi nañu Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall lay jàppal loolee wax na ko moom lay jàppale la faral moom la àndal euh, laas moo ñu wax loola observateur xëy ñu leeralal sax li waral coow nga xamante ne ji moo am dëgg-dëgg ci diggante di gouvernement bu Sénégal jëm ci wàllu emprunt obligataire lan moo ci xew ñaar fukki milliards yi waral coow li lan moo tax nguurug Sénégal bañ bañ a gàddul mairie bu Ndakaaru bor bi lépp yéen a kaay bi observateur xëy na ko leeral dem na ci ba jeex direct info moom it euh, ñëw ak ñun ci dem gi nga xamante ne ji premier ministre bu Sénégal di Mohamed Boun Abdallah Dionne demoon na ko ci assemblée nationale ak la mu fa yekk Abbas Jaber lan moo tax Mohamed Boun Abdallah Dionne maire kii di Jaber direct info da cee dem directement gën ñu koo leeralal ñu dem ci grand euh, a Parti démocratique Sénégal dañoo bëgg bu fekkente ne tëj nañ Karim ñu indi fitna ci réewum Sénégal loolee nag la ñuy waajal ba tax na am na ñoo xamante ne ñoo ngi teg seen i plan loolu sax yéene kaay bi nañu jur ñoo xam teg nañu leen loxo ca banlieue bu Ndakaaru journal bi nañu renseignements généraux yi ñoom ñooy ragal daal ñu saboté réew mi lu aju ci wàllu atteinte à la sûreté de l'État la ñuy ragal ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ñu daal leen koy toppee ñan la ñu ci jàpp le quotidien xëy ji la mu di ki nga xamante ne ji moom moo di euh, kon libération xëy ñu xamal ne lu aju ci mbir yi euh, loolee ñuy waajal ca banlieue bu Ndakaaru Alioune Sall lañ ci gënoon a visé li ñu bëggoon mooy amal ay manifesté buntu Pikine ba euh, rond-point Case ba ki nga xamante ne ji nag moom moo di Bathie Seras yéen a kaay bi nañu moom lañ ci gën a tuumal moom Bathie Seras la ñu gis ne daal moom ak beneen waay bu ñu naan Amina bokk ci UGTL ñoom ñooy ñi ñu ci jàpp Euh, quotidien dellu siwaat mais moom daf ko xëy simple ci titre bi Bathie Seras ma ca loxo yoon le quotidien nam ñu ko xëy waxe moo di ki nga xamante ne ji mooy Bathie Seras jàppale ne kon euh, ma kon ci écurie bu rëbës ñu dem ci enquête mi dikk ak ñun ci meneen biir enquête mi ngi nii xëy ñu xamal ne kon waa mouvement Y en a marre am na ci ñoo xamante ne ji teg nañu leen loxo ca fi nga xam ne moom moo di Congo Kinshasa bokk na ci Fadel Barro bokk na ci Fou Malade ak Alioune Y en a marre ma far Kabila mujj maar ci euh,

Pape Cheikh. merci Mouhamed. anamu. non ma yeggale ko. toogal waaw yeggalil waaw ayca mën nga tàggoo léegi. ayca looy looy looy wax booy looy tàggoo. merci kese kese. dernier mot Baxaw. tu remercies les chroniqueurs. tu prends les 100000 qui sont là-bas. et Alfie def de bonne dégustation. non toogal àggali ko Mahmoud toogal toogal toogal toogal. ku moom lii. maa ko moom tëgal rek. damaa xam ñu ko soxla. <laughs> léegi mu ne. waxal gaaw. jeex na tàggoon. tàggoon. nag dama koy journal de. waxal nga neex. waaw maa ngi maa ngi defar rek. maa ngi remercier toute l'équipe de la TFM donc di wax ne nag Darbrens ñu ngi ñëw bientôt incha allah ak benn album bi tudd Africa di ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal yàlla jàmb yàgg ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di féliciter bu baax a baax di remercier euh, rafetlu aussi ñëw gi nga ñëw Alfi li nga doon togg fu mu toll euh, waaw brioche yi pare na Mohamed xanaa comme ni ñu koy defee rek dañ lay jox nga déguster comme Pape Cheikh chaque jour mooy déguster man nag du ma lekk ci mbooloo <laughs> waa anam <laughs> Pape bu ma waree tëj rek wax ma de. léegi da nga yóbbu yóbbu ndékki. yow ji rek nga ne moom baa jàmm la su koo def léegi toogal bis bu Pape demee bàyyi jëm bi te tàggoo tàggul <laughs> voilà ma leen di jox <laughs> dig daje lundi prochain Mohamed dama bëggoon euh, souhaiter un heureux ak sama frère bi doon euh, marié wu démb liggéey bee tax mënu woon teew sama frère bi ma bokkal rek bay Dame Gueye ak jabaram <laughs> soxna May maa ngi leen di souhaiter heureux ménage merci beaucoup un heure ménage. Euh, Bijou Ndiaye. Ah, ah ma biche ngay wax. ma biche déedéet la biche sa Pape Cheikh. waaw d'accord ma biche. oui chérie. looy <laughs> tàggatoo. à demain ak euh, ñu ñëw ci mode. pendant ah, ce Rokhaya. à demain Mohamed Ndiaye. à eh, demain mu nekkoon yeewu leen jërë ngeen